alhamdulillahi alkarim silminan ala istiqaali bi auzu billahi min asheytaani irajim bismillahi irahmaani irahim raditu anil mawla taala lasi aadi wa ahnaani wa akrim bihi rabba naajaytuhu bi yaa nasiru yaa wali kafaytani iblisa inda jeewali kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas taamuruuna bil maxrufi wa tanhawna anil munkar mbokk asalaamaaleykum wa rahmatullah ginnaaw sant yàlla julli ci yonentam bu tedd bi ni nu ko baaxoo def weeru koor bi dikkee ñuy ñëw fii ci kër sëriñ Aliou Fall Mbawor ibnu Cheikh Ibrahima Fall fekk fi nga xam ne moo di sëriñ Cheikh Fall Mbawor mi nga xam ne moo di xalifaam ñu ànd ak moom ay waxtaan yoo xamante ni jullit yi ak taalibe yi ñoom ñoo ko ittewoo rawatina ñi nga xam ne ñoo nekk ci bitim réew di ko wéttali ko ci wàllu seen ak taalibe ak kàddu yi ñuy dégg ci moom muy jeexintal moo tax tey jii ñu ñëw fi nag ànd ak sunu actu point ngir fas yéene leen cee wutal taatan ay kàddu yoo xam ne dana agsi ci yéen sëñ bi xanaa kon mun la siyaare ci weeru màgg wi rek siyaare la ci jamono ci ñu jox la kàddu nga nuyoo bisimilah saddi lisaani nawal janaani saafi amaani wasit baraay sax sa to day li xottamay rafal taj fi jëwar li gun jëraay anxisiyaali min addalaali wa bil alaali xali saraay hitaabu xullil kitaab waqdal mutaaba yastiraay yaa xayra rabbi xayra mu rabbi tayib taxal bi baata tijaay sali wa salim ala mu tamim kul yaxsin bi leen tiyaay allahumma salli allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu ngi lay nuyu seen saa yu ñang yaag sa bokk yi nga ànd di leen gërëm di leen sant ci seeni taxawaay ak seen bëgg lu baax xenc yoonu Sëñ Tuubaa ak Seex Ibra ak lu jëm ci lislaam bi daal di ko médiatiser ñoo ngi leen ci sant di leen ci gërëm ndax média yi bari na waaye seen média yi ñooy ñooy yi gën a jëm ci yàlla ak yonte bi sëñ Tuubaa ci yéen la tàmbale te demee leen moom sëñ bi wàllu bopp média moom li man jaaxa yabqi min ka nay lan maal huda ataaya basiran tat fawul faqra wal waaye li man xaadoo joon lakum soo tajarun asabun saddin yorisul faqra wal xatla gannaaw yéen nag ci média yi nga xam ne yi ñëw ngir def lu baax ak siiwal yu baax yi ngeen bokk ñu ngi leen ci sant di leen ci gërëm jërëjëf <laughs> sëñ bi jërëjëf euh, ñu ngi ñëw ci waxtaan ci weeru koor wi koor ku ko tudd tudd Baay Faal ku tudd Baay Faal tudd ndog yi nga xam ne dañu koy yóbbu ci kër Sëriñ Tuuba muy jóge kër Cheikh Ibra loolu mën a fàttali ci ndog yi nga xam ne Cheikh Ibra moo ko daan jël di ko yóbbu kër Sëriñ Tuuba cosaan léegi yooyu cosaanal ndog de mooy sëñ tubaa ko santal Cheikh mu di ko def ndax mu weeru baraxlu day bëgg a jeex mu woolu ko mu ñëw mu xamal ko ne ko damay séenu gan suba te moom kon xam nga ne suñu borom xamaloon na ko ne weeru ci suba sa lay feeñ dama bëgg nag nanga ma ko teerul te teral ma ko bi sëñ bi génne laajte ni leen weeru tey la ci ñaati fan ñu ne ko ñaar fukk ak juróom-ñeent mun leen ndo ku weeru koor ramadan la ma sëñ bi teeruloo te daa na bu subaa nag sant nañ ñëpp ñu ñëw ñu toggi ndab yóbbul ko sëñ bi ndax ne ku bëgg a dabe ca dab yi ngay dem dabe ndab loolee nag ca la ko tàmm te ba mu xëyeet ba mu defee ndogom bu yóbboot lu mu waxan feeñ na ndax sëñ bi yaa yaa xayra day fen ata bil bisri wal madadi ahlan wa sahlan wa la moom la ko teeroo ak yaasal bu saaraat bil ayati wa suwari li sat bi ba kaw ni abdal muhsiri suwari wutal na ko weer xasida gum ko teeroo ak gum koy gànnalee buy jeexit mu duum ko ko gungee tàggoo ko nga xam ne kon xam ne ndog yi mooy dab yooyu sëkk gileem ak loolu yët nag ko njaareem ba mu fi jógit sëñ sëñ Moustapha Fall di ko togg sëñ Moustapha ne sëñ Mor ma toggal yi féete Touba sëñ Eliot da daan roñ lu mu am jox sëñ Mor di jox sëñ Moustapha bañ fa bokkee jógit sëñ Ablaye Fall mii ndeysaan sëñ Modou Ablaye wàcc barki dem donc mi nga am bi bàyyam di soog a togg ndog yi li mu ca jëkk toog la cëpp sëñ Eliot ko ko jox bay yàgg mu ne ko naa la féeteel Touba nga féete njaareem tey daa doxub diir sëñ Fallou ne sëñ Ablaye benn bés la ñëwoon fii sëñ Fallou woowaat ko ne ko na dem toggi ñu jariw woo sëñ Aliou nag toxaloo ko Touba gi ne ko nag foofee dama ko defoon adiyee Cheikh Ibra toolu soxna aw bu sa la defuma ko mag moom Cheikh Ibra laa ko joxoon tey nag damaa bëgg ngay samam Cheikh Ibra may sam sëñ Touba waxuma la mbawar waaye mbàkke gi gébb gi dong mayetuma la nga dem nga xam ne boobee ba léegi tànkam jëmatul foofu fii la féete nag di togg ndog yi di ko yóbbu waaw te yooyu uh, boobu dëkk bi xumbeegul ni mm-hmm. boobu bu ma saa yenn ndog yi ba yóbbu ko mm-hmm. kër sëñ fàllu daanaka boo toogee fii di ñaanu kër sëñ fàllu bi mm-hmm. buñ ko yóbboo sëñ bi da koy séddalee doomi sëñ Tuubaa yi li ci des mu ko ci waa dëkk bi ay kër sëñ Ceex Coroog uh, ay Mademba Xayaak bari nañ ñu ci sëñ bi daan jox bari na ñu ci daan jox léegi la ca des nit ñi poti landibaas yi siwo yi xewagu doon uh, si poti tamaate landibaas cinq kilos yi la nit ñi wut wutal ko kubéeruk seng ñu ci bari bàyyi ceenu fa di leen ci tibal ñuy yóbbu yow jamono yooyu suñu àll yi yaa daan yo ndog yi wala bokk daa nga ca bokk comme nii xale yi def ni daa nga waaw yi def daanaa ko def ca ña ca daan naan laay def ba foofu kanam sëñ Fall. <laughs> kon yi jiitu ñu leen dàq kay yow de bokk nañ ci. ba mujj ma daa nga yor jaas yi ba mujj ma bokk ci ña koy yenu ma koy yoon jaasi dafa defoon dañ la cee mas a def dara ndax ni ko ragal rek sëñ bi man kay moo tax may ñuy def ci sa mbokk dara <laughs> déet jaasi kay gis nga li muy def nag moom bu ma ko yoruti jaadu na ndax sidina Ali mañ mañ tudde mii de xay bara taxan ñu tudde ko ci dun xaaf la yoroon hmm. <laughs> waaw gannaaw nag jaasi yam yam yam yoroon la bokkan te sëñ Ali lañ ko tudde te li summi yu sama hmm. jaadu woon noonu di ko yor waaye doo dégg ñu def ci ay wala leneen jàmm doog lañ ko def ah sëñ bi jaasi de moom nit ñi dañ koo ragal eh, léegi ñuy ñëw yow yow nag bi nga tàmbalee yóbbu ndogu yi ban at la ak eh, nan nga ko tàmbalee ci sa cosaan lu ndogu. man de 78 laa ko tàmbalee at mi sëñ Ali wàcce bu liggéey 78 hmm. googeet na ko sëñ bi daan toogee laa ko daan def booba ay ceeb lañ koy def defari gàtt def ci. Hmm. at ma njëkkee dewaale xaalis bi nag laa leen di man damay changé. Hmm. nanguutumaa toog ceeb. di wut ndawal ak ak ak pompeterre yooyu ñu di ko def ba tey jii ca la ñu continué booba ñu naa ma daa seer rek danga ko waañ war a wàññi man leen nag bi mu gënee seer la tuyaa bi di gën a bari te mhm. mu ñëw ci sëñ bi fekkal na ko jàng la muy jàng xam nga moom ay waajuram ndeyam njare la dëkkan mhm. waaye maam maam Seynabou Ndiaye mhm. lu bari ñoom xamal nañ ko ay waajuram yu góor it ndey ndey waajuram wu góor ci ñooñu la bokk lañ doon xam daal xamal nañ ko bu yàgg defe naa bi ñu daataa ñëw ndax wax nañ ne ba ñuy bay ba yàgg am na bopp de daa bokk ak maam Saliou Fall fu ñuy béyee ba mu yàgg mu damm gob bi naan ko sol guuf gi nee na ma ki nga doon seet feeñ na xam nga kon mel na ne am na lu mu yëgan ci boppam ba mu ca daataa dem te bi mu daataa ñëw ci sëñ bi it sëñ Ka wax na ko dana mas nay xibaaru jébbuloom bay wax ne yàlla mi ko moom moo ko ne bàmbam moo la moom raasi ko jox ko say pexe mu tëdd guddi listixaar xam nga koy listixaar kon xam na dara ba mu xëyee ba tisbaar sëriñ Maxtaar Touré fa jaar leeram nga ko ay maxtaar Touré nga yori joor yenu ko jëm Mbàkke Kajoor Cheikh Bamba yónni ko ca buur Cheikh ba topp cay fexe ba gis fa Cheikh Adama Guèye sànni mbiram daal di ca ngoy mu woon ko Bamba mbër mu rëy sëriñ ba naa ko foo fexe mu wax ko tegtale fa moom sëriñ bi woon ko la fa moom mu xam ne gis na ko ko moom mu daal di fa mbiram joxe nga xam ne ñooñee Cheikh Adama gi moom ba ko sëñ bi yónnee maam Cheikh da leen fekk kër sëñ Bamba ba baa gi mu jógee te bi ñu ko ne Bamba moo la moom rek mu dégg Bamba moom dem fa mm-hmm. ndax day mm-hmm. ngir dégg Bamba di fa xaar fekk na sëñ tay ba da mu daal ba Dakar ngir dégg xaar fekk na sëñ tay ba Dakar ci mu njàng lay xamee pexe mm-hmm. xam nga kon moom xam na ne li muy wut nekkul ci mu njàng lu sutu jàng la bëgg te bi mu ñëwee ba ànd ak sëñ Tuubaa ba di ko liggéey fi mu doon liggéey daa am ku ko fekk ne ko jàng lu Bamba wax mu daal di naaw ko daa am ku ko ne jàngil murit du mu pexe te xam nga ne gannaaw fee daa xam ne kii ci njàng lay xamee pexe mu romb ko mm-hmm. fa mu ñëw di wut si li gënum njàng it comme fi fekk am ñu ko fi ne jàngil murit dum pexe mm-hmm. lu Bàmba wax mu daal di naaw mel na dox bu mat a yeew mm-hmm. xam nga ñoo kon am na lu mu xaman ci boppam bi bi ko ñooñu indaalee nag ba mu egg ci sëñ bi mm-hmm. nee daa ñëw ñu làq ko ci biti mm-hmm. sëñ bi neen àndu leen ak kenn ñu ne ko déedéet ba mu wax leen ko lépp ñetti yoon ñu ne ko kenn àndal yaram wi daay neexul ndax booba dañ ne jëmmam ji ak ni jëmmi sëñ bi toll ak ni mu doon aaloo ci yoon dañ koo ragal léegi nag sëñ bi neen ka ngeen àndaloon na ñëw ba mu ñëwee nee ñu da ko sëñ Bàmba feeñ nga de danaa mu ne ko Ibrahima Fall bu ma feeñal mu ne ko danga danga mel ne benn panu koor nga xam ne kon weeru koor yàgg na am yëf mhm. mu a ko luy say tànk mu ne ko ku ma yeggale ci loolu ci sa gémmiñ gi laa ko jëkk a dégg mu mhm. mhm. a dégg ko damaa topp tànk bi yàlla ba mu socc si jëmm ji boo ma ko génneelee ma jàll boo ma ko génneelu nag yow laa koy jàppe ba ma koy gis nee ñu wax ci ay yoon yoon ba mujj mu ne sëñ bi li ma jaaxal de mooy li ma jàkkaarloog yow di wax nga di ma tontu waaye bu ma la fekkul woon mu saf xabru danaa ci liggéey ba danaa ci liggéey yàlla ba egg ci moom mm-hmm. li nga may gàntu nag ten jàkkaarloo moo ma jaaxal sëñ bi daa di aalu ne ko may sallallahu alayhi wa sallam moom ngay dégg may ma tudd xaadimu rasul ne fekkuma ko fi mm-hmm. waaye xam naa ne suuf si ko da ci la daan jóge asamaan si ko daan tiim donc ci laa def tawasul ba jot xaadimu rasul nga xam ne diggante rasul ak xaadimu rasul jëwriñ jéeg borom tool bi daanaka seen diggante ay seekal seekal dox na fi mhm. te fi na raadale na tool bi ba teemu booy sëñ bi laa dana sëñ Tuubaa sëkkalub tariixa mhm. yoonu yonante ba ba mu xaalan mu mu mhm. la raadalewaat ne ku a bu waaye mën di nekk nag bu jëmut ci yàlla dana jëmi ci yàlla te bu jëmi ci yàlla muridullaahi ngay tudd ku masaa jébbul say bokk da lay génne ak da lay yeew ñenn ñu naan euh, juróom juróom murit ak juróom nama dal moom jigéen ju ne lu jigéen bon bon mën naa juróom murit mën naa juróom làppatoo léegi nag ñu ma saa euh, jébbalu seeni bokk da leen di génnee ko yeew Seex Ibra nag ndar ba ndakaaru fu mu fi jënd na ko def titre foncier nekku ci say bokk génnee teet nanga nga dugg fi woo sañ yaa naa ko euh, bi ali de moom daa woy kaay xool lettre bi lettre yooyu nag nee na daa mujj mu di ko jàngaloo booba mu mujj dugal ko ci école fils de chef boobu xam nga boobu ay mag yi jëmm lañ du ñuy gone li école fils de chef boobu nag ba mu ko cee dugal sëñ Aliou bindaat ko ne ko man de bi nasaraan bi nga ma jox damaa jaaxal mu ne ko yow xam naa ne nasaraan mënut a lekk sa xol mhm. te dugalaat na fa sëñ Assane dugal fa sëñ Ablaye ñoom ñëpp boole na leen dugal fa mhm. lam ko woon nag nasaraan mënut a lekk sa xol ne bañ jàngee ba bàyyi ay samba cam ko jaw moom fa nekk la moor lii sa njaay ak ak samba bàyyi samba yàlla Jóob seex yaaba mhm. dañ leen doon defi seesu de kantu ak sàmb nduur ak ñooñu sëñal li neen man jànguma ngir falu dara kama jàngal loo woon fa la ma santan kama yebalan daal ca moom laay dellu lu ma sant ma def ko jànguma ngir bëgg a falu bi muy ñëw Cheikh Ibra yebal ko Mbawar nee na nag Mbawar googu mu ko yebal ne nekk na fa ak ñetti chef de canton sam may sa mbay ak ñeneen nee bis bu set bala ñoo am ca ñañuy laaj dara am na ci ñu bari dañ leen daan yeew ca naaj ak duma leen ñu a joxee lemp yeeg yëpp te danañ ñëw jox ko ñi ñi ci des danañ ñëw fekk ubbeegut ñu téye faak lañ ko doon jox ba mu ubbi ñu jox ko ko te seeni rangoñ lañ cay boole te moom nga xam ne kon loolaa gën lañ ko doon jéem a fallu tey dem na fi ba nga xam ne sëñ Abdoulaye jëlee na tiire bopp waa ifan ko ko joxoon te kooku ma ko jëlee woon France ku nekkan ci ifan gi hmm. nga xam ne téere ba jaar-jaari sëñ mag bi yu bare nga ci fii la ko tegan ëpp na toll ne ful ko daanaka hmm. da daan ñëw sëñ Ali di ko bu jàngee paas mu roof ci këyit dem bu ngoonee mu dellu si bi léeg sax dana ci aalu dem ne ko ma egg Daaru Salaam gi te ñëw dem ci dem ci sëñ Modou Mamoun dëppaat dellu si waat léeg-léeg bis bi mu ñëw fi ay ñetti yoon mhm. boobee nag kii eh, këyit yooyu mu ko daan jàngal mhm. da nga ci gis yu bari ci yu bóor yi def am na ñoo xam ne ba leen tubaab bi déclaré seenu bàyyi ko ci réew mi mhm. dane la grand serviteur de France est décédé te bi muy déclaré wàccu sëñ mag bi dañ la le grand fondateur de Mouride est nga xam ne kon bokkuñu woon tey da nga ci gis ñoo xam ne léegi ñu ngi ci yoon wi doon Cheikh ba noppi seeni baay ay ancien secret leen tubaab bi jëleen fal leen ko ñu mel ne Mouride ne ci biir kër sëñ bi te dañoo mujjoon mu ne ñenee ñeneen ñooñu rallié nañ ci sëñ bi léegi war nañ na nga xam ne kon nag day mel ne njàng moomee li mu doon jàng loolee ca lañ ko doon jàng loolu bokk ndax fi ne daana fi yor eh, place yu muy defi garab yooyu rek ordonnance yi bu ko daan jëndloo ji ay Ali Mbay wala Ibrahima Diop ci kër kasi eh, kasati ci Mbàkke wala sëkkib mm-hmm. bu ko bindee jox ko xam nga naawal lañ daan yor yooyu booba oto yu bëriwut fii mm-hmm. dañuy dox ba Mbàkke jëndi ko mm-hmm. bu demee mu ne ko yow ni nga sa jëmm ji ni mu dofee ni noo bind lii mu ne ko binduma ko sama sëriñ amu yoon mu ne ko yow ki ki sa sëriñ bi kay ab tubaab la du sëriñ <laughs> bi am raw yi gi yaakaar naa ne ren ku nekk dégg na ni jàngunu dara euh, ñàkk jàng gi sax bu amoon rek mu doy waaye ñu dem ba am ñu ci ñàkk seen bakkan loolu nag ñu nekk ci diggante gouvernement beeg ñu bari ñu jiñ leen ko xale yi sax élèves yi dem nañ ba ne nan wàccee ministre sàngam tudd na ñetti ministre yow loo ciy wax. boobu it de man sama xalaat bu bëriwu ci li ma xalaatee de mooy mm. am njàng daal ku bëgg mu baax mm. dañuy toppatoo barab ba ñuy jàng toppatoo ñuy jàng. université daal dama leen bu fekkee ne dañuy euh, autorité yi yi ci réew mi mm. seeni doom day jànge fa étudiants yi jànge mm. ñi bokk lu ñuy sol di bokk lu ñuy lekk di bokk fu ñuy tëdd mm. tëddukaay ya dana baax lekk ya dana baax te garab naat du fa tàkk bal du fa dugg ndax xam nga étudiant daa war di étudier mhm. enseignant war di enseigner mhm. ñooñu ñaan nag bu fekkee mer dox na seen diggante ñuy xuloo ndax bee enseignant yooyu doon fay seen eh, i indemnité de logement bii yoon ñii laaj lu ñu lekk mhm. xam nga diggante jox ma ak jox ma nag daanaka boo ko joxut fa la xeex bay tàmbale te itam bu ñu doon fab jàng ñiy jàngale eh, école yi ñi fi nekk élèves yi da leen a ëpp bu ñu wutoon jàngalekat yu bari te ñu baax boo yokk leen ci ñiy jàng ëppaayu élèves yi ñuy tasaari leen mu gën a wàññi nga xam ne fu ne dañuy ku ne da ngay jël lim boo eh, boo attan mm-hmm. xam nga oto sax dañ koy wutal limite bu mu ne moom la war a yeb de bu ko ëppee ñu wàññi ko fii ñuy peesee ci yoon Dakar yooyu def naa loolu la ñu fay wàññi mm-hmm. nit ñi nag fii ne dañ ne bëdd yoon waaye xam na lu boppaatan benn néeg bu ko ñeenti nit waree bokk wala juróom fukki nit ak juróom necc ñenn ñi tëdd ca kaw ñenn ñi tëdd ci suuf ñi def di fii ne xam nga sa conscience nelawut nelawoo mënoo mënoo jàng xam lu bari tey dañuy wàcc ña waroon na jàngale duñ leen jël xanaa formé nit yi ay bis ñetti fan ñeenti fan bëgg leen di jox njàng mi ñu jàngale vacataire ak volontaire bi nga xam ne doo xam fu ñuy teer fu ñuy teerale gone yëpp du baax tey te année balance moom waxtu woo xasee ba def ko mm. bu année bi balancé wii noir ngay dund moom bu année bi weexeet wii dund gi day ñuul moom année balance daal wii balance wii noir lay dund mm. te ndax bag bi ci big bi la ne te mënoo bala ngaa examen da nga koy consommer. na ah. balaa daal moog eh, béykat bu perte nawet lu mu amut ci ceeba mu njëkk moom. waaw ah, béykat béykat dama leen lu ko rëcc ren bu ko amatee déwén la moo tax boo koy dimbali da nga koy teele hmm. waaye ana balance boo ko defee boo balancé at mi da nga da nga noir sa dund moom li ci des ndax xam nga sa ñàkk xam nga du yem ci atum ren mi rek li nga tardé continue lay def. bi ñoo ci gën a dugal seen bopp ndax bari nañ tubaab bi forcé lu leen ni leen jàng si leen ko mhm. ñoo fab seeni doom dugal ci mhm. alxuraan ji dañoo ubbi wàcc te duñ fa nangoo yóbbu seen doom dama leen nag am na ci ñun seen seen conseillage leen ndax ndax li ñuy def mbaaram nga tax daaray alxuraan ji mhm. ak ñi yelwaane léeg kee ñu tabaxal ko aj ko ci kaw dangay ngay defee ne kee la ko gën waaye lii ngëneel ci xol bu baax lay nekk te kii moom li alxuraan def ci dënn akub xolam du bokk ak lay ne ca te na état ay la waaye daara moom dëxëran la moo tax ñu war di ko jéem a di ko di ko di ko jéem a toppatoo te itam fii ne xam nga di jàngale ba yàgg nga ne ko xupp di laaj ne néego laajoo sag pay da nga ne liñ ma waroon dooleel ci li may fay liñ may fay nañ ma ko jox kee moom day yelwaan di lekk fi ne déggoo jànkatub daara bu geraw ni ndax koo xam ne ma astata lay wax te ni nga ma ne la la ko laaje kooku mun ta geraw te it dama leen ne li ma leen naan jigéen baax na góor baax na fii ne loolu yéeteen góor ñi nga xam ne lijjanti nañ ko fi ba at mi bëgg a jeex jenn jigéen a ko lijjanti ci bis te jigéen yooyu ko lijjanti gannaaw bi ñu ngi ko ci xasaat ak naan a génn ci réew mi daa war a bàyyi lijjanti loo mënul ka la ko dimbalee bu defee lu baax da nga koy na jigéen ñu mokkal alxuraan fii tari ko barki démb jana lijjanti mooy jooju ngay bañ a tudd rek Marème Faye maram kay moom deewu doy wun ko lool togg ndogu ak toppatoo kii ngay wax de yàlla ko nit ñi fale waaye moom fale wun ko lijjanti gouvernement bi xam nga ah. kër kat bu ñu la nee yaa yor kër gi ah. luy bëgg a yàqu ci kër gi lu ne sa loxo nga ci hmm. fii ne sa kër nit a la fay fajal loo yëgut waaye man loolu daa séparé moom wax dëgg yàlla bu dee loolu moom faluwuñ ko moom Macky Sall lan faloon wala kii moom ci boppam dañ koo falul dara xam nga ba ñuy wote faluñu ah, kon lu muy lijjanti lijjanti ñuy élèves yu jàngut ak kii yu jàngut ba ñuy fal ah. ne da te première dame bu ne ay dame yu ko mag a ngi fi la tax a dugg ca loole ba kuñ fal sa kuñ fal sa da nga doon madame bu la mu doon ba am na ñu koy sant naa bu dul woon mooma dun faloog yooyu loolu yàtta moom falu na ko woon loolu ko fi ba tey waaw waaye loolaat loolu moom moom ñooñaa ko séq waaye man daal li doon bëgg a yàqu mu defar ko moom dégg naa ko hmm. lam ca defar nag man sant naa ko ci ndax ko bàyyoon mu yàqoot ci góor ñe la ko defar te te fi neen lu làmbi góor réy réy lu bàkk wa réy réy bu ñibbee ci yaanu jigéen lay dellu nàmpi ci ah. eh, yaakaar naa gaa yi ko doon tontu te ñàmbaasal na leen aw tur de moom hmm. eh, ñu mën a xama musay matul lan musay matul kasa xama moom it tontu na yaakaar naa tontuwaat na de. Hmm. lu mu waxaat moom. Ah, ñooñu muy wax ne Musaymatul Kassab xaw ma dolliwaat ko ci seen tur. Hmm. Ah, loolu mooy lan. ñoom ñu dolli ko la. Ah? Musaylima de ku daan jéem a tër alxuraan ni yonent bi defar la. Hmm. bañ tuddee ko ki daa wax lu dul dëgg ci réew mi. ah loolu moom la ko yonent bi tuddee. Eh, léegi sëñ bi ñu ñëw nag ci yaa ngi daan wax ci loo xamante ni. Moussa Ka naan jàngal. xare musali marché kasa bi moo mën a fen yonente bi wax ne bisu faatoom ba yàllaaw ci barsande da nga ko ca fekk <laughs> yaa ngi daan yàgg di wax ci loo xamante ni appareil yeeg technologie beeg facebook beeg nangam léegi daa mel ni sa sëñ bi nit ñi fi ñu toll gone gu ndaw ko gis jigéen ñeeg yooyu fi ñu toll amunu mel na pexe moo ci mun ci war a soññewaat ba mu wàññeeku ndax jéey yi am yu bare bare ci mel na ni foofu lay jóge xam nga man dama la ko waxam hmm. am na ci loo xam ne teg nii loose la. Mm-hmm. waaw te eh, te er, er, er, technologie lu mu avancé avancé du tee noru ami gars yi te Facebook bi boo ci dem dee ci def lu Facebook. Mm-hmm. internet entre nit ak nit la waaye nit ak dof du ko soyee du ko suyee. Mm-hmm. net bi ju dugg ci jikkoy not bu. youtube bi dee ciy def youtube ku moo kif lay ni whatsapp bi wattu cee def luñ sib. moo ne ma ko wax ne buñ ko ni saamee woon ba nga gën jàmm doo ngay am. waaye am réew bar ca pepp tooba bar ca bóor jigéen bar ca góor dara du ci jur jàmm am tooba tuuti pepp nga cay def te bu màggee da nga koy wollat ba yem Eh, Abdou Diouf nag da leen a naxe woon ne leen jàkka jàng ku mën a nodd na nodd waaye li nodd nodd li noddkat yi bari bari ba ku ne poche kanda waaye noddkat yi duñ bari bari kenn ji jàkka ji kii jenn ji limaan la yam xam nga loolu dañ ko doon gunge ba mu julli ji rek loolu nag dañ ci dul yow dañ cee war a yow jigi jenn jigéen bu ko mbooloom góor bëggee séq muy soxna su ko ne munta nekk kenn ko ca mën a yor mm-hmm. te dama leen jigéen ju mbooloo bokk moom mbaxana bu dayra bokk yam fokk moom bopp bu mu réem Euh, léegi sëñ bi ñu ñëw ci wàllu jikko yi jikko yi nga xam ne wax naa ci léegi muy jikko yoo xamante ni Sénégal xamu ko woon euh, réew mi tamit xamut woon yu mel noonu euh, waaye léegi dafa mel ni dafa dikk responsabilité bi ci kilifa diine yi am mooy lan. kilifa diine yi dem mag ñu jëkk ñi dañoo tànn seen nit yi diine mm-hmm. wutal leen waajur yu baax ñu judd ñu yaraat leen mm-hmm. dama leen fii ne dañ naan fii ne portaatum soxna poñateetum doom mm-hmm. waaw am ngaañ daal boo ko boo ko boo bëggee boo gileeb taal xaaju guddi fekk ci fekk ci lu boyal mm-hmm. da ngay taalum ngaañ waaye poñ poñ poñoo rek poñat moom lu mu la woon ci bu timisee balaa jant ñi taalub jàng yi sax boo ko ci defee jëneer bu buy jóg di fay fi da nga wutiwaat leneen mm-hmm. de de seet ku baax jël ko daal mm-hmm. fexee ba def ci moom diine yonante bi dañoon koy jël ku dul ko am diine ah, dara ba yeddaak dóor nga sa loxo ci ëkk moom bu la ca taar ba rey na la ci kii jëre waaye ko ku dem tukki takk rek mooy li cëpp moo ko yàq ndax dem ci dëkk gis fa ko rafet te xamoo jikko ji rafet naam déet ku jur kii ñun la diw rek nañ ma ko may tukki takk yee yàqu lu bari ndax bu màggee boo ci juree dem bu màggee bu boolee caay caay kër nijaayam ak kër baayam tasum réew xam nga kilifa dawul wax mukk nit ñi tegaat ca dara mm-hmm. sa kilifa wax ba noppi nga teg ca leen nag jaadu te maam sunu ibrahima loolu la bañan ba tànn noonu njabootam mm-hmm. dañoo rabbana ablana min aswaajina wa surriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman mm-hmm. nga xam ne waa këram ñi ci ah, muttaqina yi la bëgg ñu bokk ci way ragal yàlla te it eh, bëggul ñu bokk ci yaafi si muttaqina imaamul muttaqina yi la bëgg ñu doon ci sëñ mag bi ñaanati rab ablana surriyatan tuddi mu alhamala saale yaa xadim yaa ngay wax naa fii duñu wax jàmm ak bëgguñu wax lu kii ak dama man koy waxumañ médaille dama leen am na ci ñooñ ñoo bëggut a dégg média buy wax jàmm booy wax jàmm duñ la déglu booy bind jàmm it duñ duñ jënd sab surnaal koo xam ne nag dégg njaaxum ak euh, jàng njaaxum ngay bëgg ci xuuru njaaxum ngay tàbbi ji ci li moo indi fii ngay mujj ah, nit ñi ñoom ñoom dañuy déglu te lee leen bëgg a dégg bëgg noo dégloo lu baax nee nga ginnaaw <laughs> fële la ñuy dégg ah at ni nii kay léeg ñu ñëw ci kii léegi li nga dégg kilifa yi wax ko ci ak ñu bari ñenn ñi ne sax génn ne ci lislaam ñenn ñi ne nangam ñu bari ñu wax ko ci yooyu waxin yow jàpp nga ne waxin laaj yuy defar cim réew islaam daal man dama leen ku ciy génn ku ciy dugg ci sab xol ah, eh, diine moom accompagné ci xolu borom lay lay dogge fii ne fas fii ne mën na nit mën na laa wëccaloo sa jabar ci sab xol wëcc ko doo ko wëccil wala nday tas loola ko la bàyyi bàyyi ak nday mën nañu laa may jabar waaye ñu la ko wëccaloo ngëm nag ak diine ak akub sëy moom ci xolub borom lay dogge diine ak nit ki daal yaa ngi koy xame ci ci mu dagg ci xolam ñàkkuk diine mi ca ca nga koy xame waaye eh, inna diine inna laay islam daal la suñu borom waxan mm-hmm. l'islam daal mooy diine wa man yabtaqi xayra islaami diinin falan yaqbala wa fil aaxirati la minal xaasiriin la minal xaasiriin ku jàpp leneen lu dul islam jàppe ko sa diina du diine te bu bu yomal xiyaamee ca ñay perte ngay bokk mm. yonante bi jëbaliwu ko foon lu weesu diine هو الذي أرسل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليشرع على دين كله وكفى ba noppi nag ne ko deel yërëme te saay saay te soxor ci kéefar yi rasulullahi wala si na maaw asida alal kufari waaye ru amaaw baynahum sarahum rukaan sujaada yëpp taxuna fàlla minlaay wa ridwaan simaam fi jo miasa sudio saalika masalum fi tawreet masalum fi jine kasar aqdati fa sara fa saxlala fa sa ala sox yuy jubi ko xar leexti bi bëggee ne da nga doonu murit te doonu jullit ba nga daataa doon murit doon nga jullit ba nga doonee murit ba nga doonee jullit di dugg si ci murit nag gannaaw muridu laay la ñu woote daal luy jëm ci yàlla lu ne damaa defe ne gannaaw nee na ku fi indi lu dul diine du ma ko nangu ku ciy jëm diine nga war a yor Baay Faal yi bu ajjuma bu nu amee fukki fan ci weer wi fukkeelu fan ba dañuy mel ne lu yokkaat seen i kii ak yooyu loolu lan la da ciy aada ci biir yëf yi wala dara dama gis xam nga euh, weeru koor da nga da ngaa dégg ñu séddale ko ñetti cedd mm-hmm. bi ñu ne yërmande la bi maxfira ak rahma nan mm-hmm. Eh, eh, ak ak ak gore ci sawara waaw xam nga fukki fan yu ne yàlla daa am nu ko luñ ne nu yonante bi ne woon yàlla defal na ko ci nit ñi mm-hmm. bii goreel na leen ci ci sawara mm-hmm. bii defal na leen ko rahmati mm-hmm. bii goreel na leen ko ca àjjana maxfirat noonu nag moo tax nu bu teroo bu ne not mel na koy soog a tàmbaliwaat rek te mag ñu jëkk ñi dañ daan wax naan weer bañ na koor bañ na ñetti kumte daqaar bañ na jëmm ñaar noonu nag bu ñëw nu jàmbaat ko ci rek léegi xale yi yóbbu ndog yi lan nga ci waxaat ci nit ñi nit ñi yóbbante yi ñu yóbbante ci kii ak yooyu yi yóbbu car yi fii ci tëli bi ak yooyu yan ciy wax. xam nga ginnaaw jaas yi moom xam naa ne moom. waxoo ci dara yóbbante yi da nga naan car oto yi waaye këruñu oto yi oto boo xam ne fa nga jëm la jógee. moo la ñoom oto boo xam ne ñoom dañuy jiitu oto yi bala noo dikk ñu kar leen mat kilomètre jaar daal wàccal. di ba ma xëy bi nii dem moom xam nañ ko. te ku ci daje woon ak mbërum laam mu bëri jiwoon ba ñibbi da nga ko may mu jàll ku ca daje ji wala ah, mbër yi nga leen di tëkkale ku yóbbu ndogu déedéet ki yóbbu ko dama leen de lii lii daa gën loola ba noppi ñuy nangu may lool te duñ nangu may li hmm. mbërum làmb mi bu bëri joon bay bàkku ji ñibbi yor ngembam da nga koy maj mu jàll hmm. que boo ko football yi bay dem nga may ko mu jaal kay yenuñu ndabam jëmee ko ci sëñ Touba nag nga xam ne yow li la tax a am versement mooy këñ jëm hmm. ndax yow fii ne ku siyaare sëñ Touba ba ci nga amee versement wala ku siyaare ji bay dellu fa sa di jóge nag bu fa teraanga jëmee waru ko yàq loolu moo ciy setoon. waaw waaw boo ci bëgg de xanaa yaa ko ciy defal sa bopp. kon ñoo ko déggandoo mbokk yi kon ñu ñëw <laughs> mën na laa wan taar bi waaye mënu laa wan jikko yi. nga tegaat ci ne nu de tuddati boo ko takkee ci mbedd ci kër lay la ne. Ah, déet dama la ne takk ci takk ci takk ci caméra. ak wàcc ci téléphone dara du ci farat. Mm-hmm. ndax caméra moom mën na la woon mën na laa woon jëmm caméra a mm-hmm. waaye du la woon jikkoy ndaw sa. Mm-hmm. waaw booy wàcc ci téléphone it boo amee goro bu dégguwut rek sa soxna mën nga koy laaj mu ne xawma fu ko. te fekk mi ngi toog ci wetam. boo waxtu wi nga fiy vacances da nga ci gis rocc ko waaye soxna soo xam ne ci mbedd ngeen daje hmm. ci rond-point ngeen daje nga takke ko fa hmm. buy tas ci Carrefour lay tase sëñ bi ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm kon mbokk yi lii la leen jëlale woon tey fii ci <laughs> eh, lii la leen jëlale woon tey fii ci kër sëñ Cheikh Fall <laughs> ñu ngi koy sant bu baax baax di sant mbokk yi gis nga tubaar fa kàlla mujj na ñëpp daanaka doon mujj ñëw <laughs> eh, di seetaan si bi ñu ngi leen di sant baax di leen gërëm yal na nu yàlla def eh, ñu teewee ko fi ay ati at suñ borom yàggal ko fi lool te wéral ko ba liggéeyal sëriñ Tuubaa yi muy liggéeyal Cheikh Ibra suñ borom may ko ci ndam te may leen ci ndam ark borom ñëpp salaamaaleykum wa rahmatullah wa sunan alhamdulillahi alkarim silminan ala istiqaali bi furudin wa sunan sakartu li'anna qad saxani liwatanin bi nafa maaqani waxaadani ilay bi taani من بعد ما سبب التخير وجرني في إلى العلوم والفوز والأمل بالمحلوم ثم الصلاة بسلام تبعا هل الذي خزي أنا تبعا هل الذي من بمرادي اقتدى في سر والجار يكون مقتدا هو الذي هاجر للمدينة بأمر ربي فسان الدين وسيلتي لمالك الرفيع محمد الخير ولا سفيع وآله وصحبه النجوم الخاعر النفوس